yonent yàlla Muusa ñëw ci xissatu sunu maam aadama njabootam te mooy xissatu haabil ak xaabil muy xissa boo xam ni bu yitteel yàlla la ci kaw suuf ndax yàlla bi mu bind sunu maam aadama malaaka yi am na luñ ko waxoon ni ko ndax da ngay bind ci kaw wàcce ci kaw suuf koo xamante ni day yàq kaw suuf yàq kaw suuf nag lu yaatu la waaye ba ca gën a garaaw mooy di tuurante ay deret di reyante yàlla ni leen xam naa lu ngeen xamul bi mu ñëwee nag bind suñu maam aadama ak awa ñu di ay jëkkër ak jabar yàlla dafa dogal sunu maam xawaa ëmb bu muy ëmb góor ak jigéen lay doon ëmb bu muy ëmb góor ak jigéen lay doon góor ak jigéen yi bu ñu juddoo góor ak jigéen yi ca topp dañuy inversé góor gi nekk fi mooy takk jigéen bee góor gi nekk fi takk jigéen bi loolu moo doon sharia bi ah ndaxte loolu amul kat àdduna bi duñu mën a ñaar a fi nekk te ñaar ñoo ñoo war a jur àddina bi kon yàlla dina daganal loo xam ni ci seen sharia loolu moo fay valable bi nga xamante ne haabil ak xaabil ñu nu seexu xaabil dafa rafet seexu haabil ñaaw léegi haabil moo war a takk seexu xaabil te mu rafet lool xaabil bañ di moom du du takk seexu haabil bii ndax dafa ñaaw bi nga xamante weccante nañ ci ay kàddu booba jamono boobu lépp loo xamante ne bi bëgg nga koo xam su fekkee lu yàlla digle la walla ñaan goo xamante da nga koy def boo bëggee xam yàlla nangu yàlla nangu na koom déet dangay jël benn biir ni mu def naa ko ak jaamu yàlla teg ko soo ko tegee ñaan yàlla bu dee dafa nangu yàlla day yabal safara mu ñëw lekk ko su fekkee nanguwul nag bu boobaa loola foofa lay nekk ni ci ci mu xaabil def ak jaamoom haabil def ak jaamoom bi xaabil defee bosam demul haabil def bosam safara jóge asamaan lekk moom lay nettali sa boobu nag ci lañ àgg ba xaabil rey ko bi mu ko reyee xamul lu mu koy def ndax mooy ki njëkk rey nit ci kaw suuf xamul nan lay def li mu rey mu yenu koy daw rek sonn lool ci moom yenu koy daw rek ba mu soob yàlla mu yabal ñaari baaxoñ ñu xeex ci kanamu xaabil ñu xeex benn baaxoñ bi rey moroomam ba pare jël begam nag di gas suuf si gas a gas a gas gas a gas ba gas ba mu mënte dugal moroom ji daal di koy dugal suul ko foofu kon xanaa mala jàngal na doomu aadama picc jàngal na nit foofu loolu lépp nag dugg ci indi aalamu maa laa taalamuun yàlla ne xam naa lu ngeen xamul ba mu gisee loolu daal ne ah man lott naa sax ci def ni picc mi def cest à mooy picc mi sax am na xelam rey moroomam suul ko te man awma ko mu daal di def la picc ma def suul mbokkam mi di Haabil moom la yàlla nettali xisa boobu ci alquran di wattu jàngatal yow Muhammad sallallahu alayhi ci ñoom mooy saw xeet naba a xabaaru ibnay aadama ñaari doomi góori aadama ya muy haabil ak qaabil bil xaq mu làmboo dëgg nag waaw mu lay wax dëgg la ju wér is jamono ja nga xam ne qarrabaa jaamu nañu qurbaanan ak jaamu ci yàlla mooy ñu jël am kuy ku nekk jël am kuy kay jël la bayoon ñu teg ko fa tuqbila ñu nangul min ahadihima kenn ci ñom ñaar ma ñu nangul habil safara wàcc joge ci asaman yobbu kuyma wala walam taqabbal ta nangulun min al axari ta kaneen ka te mooy qaabil bañ ka defé rek qabil mer baba ñu ne wax seen baay di sunu maam aadama dafa demoon aji ji fekku ko fi xaala mu ni la aqtulannaka waat naa ni danaa la rey baat bii nag moo dellusi ci jamono léegi xale yi koo ci waxal baat bi mu lay jëkk wax mooy dama lay suuj te loolu lu moytu la dinaa la rey baat buñ jar moytu la parce que làmmañ dafa and ak bala di nga gis wayjuru juru ko wax domam mer ne ko buma la jappel dina la ray yalla dogal nga japp ko dor gi ko dóor baaxoowun nit dor ke nit mu dee waaye ba nga rek sa kaddu nga dor ko mu faatu kon lu jara moytu la waaw ndax ki jëkk nit ci kaw suuf avant mu koy def da koo wax ba noppi dinaa la rey léegi nag moo fi xew léegi xale yi léegi kenn xeexeetul ay loxo dóorante sax gone boo ni une deux mu daw wuti paaka dama lay rey xaala wax innamaa yëgal yataqabbalu allahu yàlla dana nangu xaa haabil ne ko yalla day nangul de minal muttaqina ci ñaragal yalla la in wat naa ni ca deug dëgg ba satta ndegam talal nga ilay ya ci man yadaka sa loxo li taqtalani ngir nga ma ana det man bi basatin ma di aji talal ya day samay loxo ilay ka jëme ko ci yow li aqtalaka pour rey la wax ji warona daano bokkul waaw kii woote ay kii woote jàmm waaw mu ne ko soo yëkkatee sama loxo di sa loxo di ma ngir rey ma du yëkkati sama loxo mukk yow di la jéem faat waaw parce que xam na la ca ne te mu ngi koy wax ci kanam képp koo rey te waroo koo rey te mu julit julit bu rey mbokum julitam te waru ko na rey moom enrasaan julit ba lepp la nga xam bi waroon naa muy bakar wala luy bon yow yanu nga lepp te bi nga ko reyee rek yow yóbbu nga ko àjjana legi nak lepp lu bonom lu mu am yow yanu nga ko moo tax ba wax ku mu julite tay ko ñeenti ñeenti mbugal la ca tegalé waaw ñetti mbugal la ca tegale wa man qatala muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannam xaalidan fiha wa gadiba allahu alayhi wa laanahu wa adda lahu jahannam wa saat masira mi ñeenti xeetu mbugal yoo xam ne yàlla da koy teg ci ku rey ab julit te tey ko mu ngi noonu ah wax na ko loolu kii lu tax mu wax ko loolu dama yëkkat sama loxo di la rey lu tax mun ko inni wóor na ni man axaafu allaha damaa ragal yàlla waaw man dama ragal yàlla lii nag képp ku ragal gëm yàlla te ragal ko position bii nga war a taxawe bi Haabil taxawe léegi nag bi xew tamit mooy bala ngaa rey ma rey la bala nga maa rey ma rey la looloo xew waaw bala nga maa rey ma rey la ah ndonte la nag mën ngaa am mucc euleuk parce que ki la nar a rey yonent bi salaa salaam nee ko na nga défendre sa bop waaw ki nara jël sa alal fa séelé la pour jël sa alal nang nga défendre sa bop soko ray mom mu dem safara te yow dula te dem aljana waaw kon li tax mun ko duma la ray duma yëkkat sama loxo jëme ko ci yow pour ray la dama ragal yàlla yàlla man rabbal alamin, kii borom bi ndefi waaw kon duma la jema ray mukk inni ne man uridu dama bëgg an tabu anga bi ismi sama bakar, wa ismi ak aksa bakar, fatakuna nga nek nga bok min ashabin nar ci wa safara nga yenu samay bàkkaar boole ko ak say bàkkaar boo dee dem safara waaye man duma jël position boobu mukk man waaw rey la yenn say bàkkaar boole ak samay bàkkaar dem safara man du ma ko def moo tax yéen kafe nañ ko ba waaw léegi dañuy kafe bakkani doomu aadama yi mu ngi noonu wa dalika loolu de jazaau zalimina mooy fayiku way tooñña waaw fa tawaat taaralal na ko lahu ñeel ka nafsuhu bakkanam bakkan ba rafetal na ko rey gi saa yi ngay bëgg a def mbir sa bakkan rafetal la ko wala seytaane rafetal la ko ba mu ni yow li boko defé da ngay am ndam ndam lay do bakkan barafatal rafetal ko lan la ko rafatal qatla akhihi ray mbokam ma fa qatalahu fa asbaha nek min al khasirina ta way perte nya de khasirina day bok ci ñay perte ndax ray na ko ba top nopi xamul num kay def te ki mu rey mbokkam la ëllëg mën naa bokk ca ñi koy jariñ waaye rey na ko bokk ca ñay perte ndax ëllëg yomal xiyaam du fa am lu baax am ñu ne bi mu ko reyee gàddu na ko ñeent fukki fan am ñu ne gàddu na ko at di wër moom deret bi mu tuuroo ci suuf te yàlla dane woon bu kenn bu leen bu leen bu leen yàq kaw suuf ngi noonu kon gis nga ko rek bakkan moo ko jël pousse kooku nag dafa bokk ci noonu seytaane ci noonu doomu aadama di mais bakkan da cee bokk seytaane ni mu nekk ca sa sa noon yàlla ni noon bu biir la nu muy noonu ak yéen sa bakkan noonu la nekk noon bu biir di biir di di noone ak yow waaye tamit bànneexu àddina tamit yii yépp day rafetal doomu aadama bi loo xamante ni bi lu ñaaw la pour mu def ko li yuriyahu ngir mu wan ka kayfa yu waari nan lay suturaale saw ata axiihi néewu mbokkam ma xaala mu ne yaa waylata war naa toskare sama aaja su ndax damay lot an akuna ma nekk misla hadal xuraabi comme baaxoon bii fa uwaari ma suturaal sawta axi sama néew mbokk mi fa asbaxa mu mujj nekk mi dal naadimina ca ñay rëcc waaw ku ko def rëcc ko ba mu xoolee baaxoñ bi yàlla yebal baaxoñ bi mu ñëw xeex ak mbokkum baaxoñam rey ko pare gas ba baaxoñ xacca mu suul naaw woon ko ginnaaw moo tax yàlla di wane foofu su la bëggee jàngal yàlla lépp alalama lu ko neex mën na la cee jàngale yow doomu aadama am na koo xam ne benn action moo jaar ci kanamam mu jàngat ca gëm ci borom bi subhaanahu wa te bari na loo xam ni parce que nit yàlla ko bind ngir moom waaye leneen li nekk ci kaw suuf yàlla du ko bind pour doomu aadama nga daanaaw da koo bind pour doomu aadama fu doomu aadama yam ci xam-xam ci li fi nekk moo fa yamale boppam ndax wa allama aadama al asmaa kullaha la yàlla wax kon lépp lu wër nit doomu aadama fu ci yam ci gëstoom foofa la ca yamale boppam waaye yàlla jox na ko xam-xam ba yépp kon tey picc moo jàngal doomu aadama nan lay suturaale néewub moroomam muy première nag boo amee ci kaw suuf min ajli dalika looloo tax jëfi qaabil jooju moo tax katab naa dogal nañu farataal nañu ala bani israila ci giir yonente yàlla njabootu yàlla nante ci waa banu israil annahu nakal li tembir mom, mbir man qatala kep ko rey nafsan abakan, bi ghairi nafsin tuludul bakan dul bakkan koham ne dafa ray bakkan bo xamne ne waruñu ko ray ndax bakkan ba bu reyee beneen bakkan te waru ko ray mom bakanam dañ ko ca wara ray motax yalla nafsan bi ghairi nafsin ci ludul dul bakkan xamne rayul ne ab nga dem ray ko wala bakkan boo xam ni atte wuñ pour ray ko nga dem ray wala ak wala ñu dikke ak yàq fil ard ci suuf moo xam wedd yàlla la moo xam wala sax di li agresi, def agressé waaw xotaa turuq mooy fa ma dafa melni ni ku def lolou dafa melni ni an-nas rayna nit ñi jami'an an boole seen gis nga ab dekk man na ñuy dund ci jamm do fa deg musiba waye suñ demee ba benn bis kenn nit ray fa nit rek ubbi nañ fa buntu reyaate ndax kanen ko reyate rek dañ koy jël teg ca bu jëkk ba mo ne diw defon nako motax yow mi ko def